dal leen ak jàmm ni ki démb boobu léegi naka wàllum teer la ñuy di jëmale naka train express régional ba tàmbale na ba naka mujjee naa tegu ca raay ba Macky nga xamante ni ñoo loru naka ci teer boobee naka daan leen toppandi ba fay leen ba ca kaa bu mujj ba naka loolu lépp di Walf Fadjri naka ni ko màttu ba dëgër naka si ñooy def naka si noonu maanaam yéen ci habitude nga xamante ni sénégalais yi naka dañ koo taamuli de nee le président de la république xam ne naka boobu le naka ci kanam daanu ko yokk mu law ba ca Thiès waaye itam ca Mbour moom Macky Sall ne fekk naka ñoo ngi xool ndaw naka jàppale lu ndaw rek la def waaye naka moom seen na lu bare bari te dina ko def Mountaga Sy naka ndajeeg démb ba du ko gaaw fàtte ndax naanaka moom lañ jot gënoon a gërëm moom mooy DG Apix bi yéene kaay bi di Sud Quotidien ca la xëy l'évidence yéene kaay ci DG boobee la desani nag ndax Macky Sall nag na jéegoom bu baax a baax ci la mu duppee émergence bés bi le jour ca la desani nee na terre une réalité doon na dëggantaan la doon laam-laamee Macky Sall moo ngi émergé bu baax a baax moom président de la république sàkku na rek ci sénégalais ñu def terre soxna la moom ab dawalkatu teer la visage am naka yéenekaay bi xëy na di ko nettali L'As Quotidien nee na teer boobee nag Macky ni nag daanaka naka lëngu ak li nga xamante moo di modernité li yeneen dëkk yi di am yëpp Sénégal am na ko am na teeram nag niki démb lañ ko doon daloo la dépêche yéenekaay mel ni kuy gaar waale ne les anti-terre nag à terre maanaam ñi doon ŋàññi teer bi ñoom ñëpp nag ñoo ngi suuf ndax la bëggoon amul ndax nee na daal jóg nañu ngir rek taxawal Sénégal mu bokk ci réew yi nga xamante ni moom la ñu gën a ci wàllum infrastructure trajectoire Aminata Mansour Sène moom itam nga xamante ay détracteur na noonee la ko yéenekaay bi di exclusif xëy fësal Le Soleil yéenekaay naka ci mbind mu réy ni nee na c'est une boo xamante ni na rek ci réewum Sénégal ñaareelu phase bi li ko dalee jam ñaajo AIBD waaye nag waa bidi nag ñoo ngi xam ne tolloo ko 76 milliards naka ak baat de 60 milliards daanu ko ci dugal sept train additionnel yoo xamante ni si danañ ko gis ngir rek ñu daldee lëkkale ay BD ba jam ñaajo 15 jours maanaam fukki fan ak juróom yoo xamante ni Sénégal da koy sargal teer boobee waaye nag dina transporter lu tolloo ko 250 personnes le témoin quotidien di xëy di témoigner naka inauguration ñaari yoon ci at mi teer bi naka mujjee at gannaaw yu na ni ki démb naka train express régional mais bi daanaka mooy bu baax bi ndax teer bi mujjee naa daw ba sifle boog daaldeeg teer tribune yéen kaay jógee ci teer boobee wax ci naka ci dund gu cher gi nee na naka pénurie ñàkkum dund gi bu cher naka loolee naka ak i grève yu bëri entreprise yi nee na 2021 année de souffrance et de galère maanaam coono dëgg la ci askan wi dund ab ni cher na ba jéggi dayo askan wi sonn lottu amuñu xaalis noonee la ko yéen kaay bi xëy fësale ñu ne déetawaay ñàkkum ndox mi ak front social bi nga xamante ni tàng jër la def année de souffrance bi nga xamante ni dootuñ ko gaaw fàtte fësal le mandat yéene kaay di ko feelu tey xëy rek di li nga xamante ni si lool ci atum 2021 xiif deret ju tuuru di bu yàqoo-yàqoo carnage financier ak yeneen jafe-jafe yoo xamante réew moom leneen la xëyate fukki at ak ñeent yi gannaaw bi nga xamante ni Serigne Saliou Mbacké tëddu na àdduna bi bi nee na nag ab témoignage boo xamante ni Serigne Mountakha Mbacké jot na koo yëkkati Serigne Saliou Mbacké bokkoon ci góor ci communauté sénégalaise tey jii naka fukki ak ñeent wéy di ko fàttaliku ak jëf ju baax yi nga xamante ni jot na ko fee bàyyi la ñu bàyyeegul kay mu nga xawee ci benn dëkk ba faree ci diwaanu Thiès foofe naka benn dëkk woo xamante ni si ay géwél fa dëkk dañ leen di tere ñu suul seen niw ca dëkk boobee ndax nee nañu daal dañuy um seen dëkk ba duñu am dara cay Sénégal kon fii la toll ñoo ko déggandoo jàngeen jëf ba ëllëg